bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu mbokki daara soppi sëriñ tubaa xaadim rasul yëpp ñoo ngi leen di nuyu eh, di siyaar bu baax mboolem mbokk yi nga xam ne si ne ñu ngi ci daara soppi sëriñ tubaa xaadim rasul bu diine ak information eh, ñu di leen fàttali ne lii nga mooy màggal Mbàkke Kajoor deux mille vingt deux jàpp nañ ko vendredi muy dëppoog le vingt trois décembre euh, deux mille vingt deux